ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di ko nuyu moom tamit euh, suka di nuyu Samba Ndar yëpp ñu ngi leen di nuyu ñoom tamit ah bi moom dama doon wëndeelu quoi dama doon wëndeelu ndax man Ndar moom boo fay dugg rek da ngay mm-hmm. maanaam à da ngay gis ndox à droite nga gis ndox maanaam loolu bariwul dëkk yi mu am ci Sénégal waaw kon mi ngi noonu ñu ngi leen di ziar bu baax a baax waa Jamina rek ñëpp Lamine euh, Sonko ñu ngi lay nuyu yowaat bu baax léegi nag ñu door waxtaan wi ak seen ñooñ yi nekk ci kaso bi di Ousmane Sarr noonu la ah. Ousmane Sarr ak Bayna Gueye. ak Bayna Gueye ah, ñoom ñaar yëpp jot nañ sax jaar ci Taku Show ah, ñu ngi leen di masawu bu baax lan mooy seen situation actuellement kañ la génn. waaw euh, euh, kii nu mu tudd sax Ousmane Sarr ak Bayna Gueye am nañu yaakaar fi ak euh, ay fan yu new dinañ leen bàyyi. Mhm. mais comme suñu doon delluwaat si actualité bi lan moo xewoon. dañu demoon fekki mooy premier ministre bu muy dajeek société civile si lañ doon kaas dine ne libéré mooy Pape Alé ak Karim si lañ leen jàppee teg leen loxo ba tey plus de trois mois ñu ngi toog si kaso si loo xamante ne libéré Pape Alé libéré Karim mooy wane jaay doole bi nekk si réew mi rek on n'est pas égaux devant la loi am na nit yu def lu ne fàng ñu ngi dox di doxi seen soxla nga mën a ñëw dans un pays où l' article huit l' article dix ba l' onze dafa dafa sàmm ak ak yelleef mooy nit war ngaa mën a manifester wu parce que manifestation léegi soo seetloo da ngay yëgle rek c' est un droit donc soo demee lu mel ni loolu te premier ministre woo société civile ñun ñu bokk société civile bi am ñoo xamante am na lu leen naqari ñu koy wax ñu jàpp leen tëj leen plus de trois mois loolu wax dëgg yàlla ñun moom sincèrement naqari nañu trop ba fu donte dañ leen di bàyyi si fan yu néew mais seen place daal nekkul woon kaso daal ah? jot na leen atte nañ leen waaw ko dooroon leen trois mois trois mois yi nag ñooy waaj a jot Mhm. moo tax ñu leen di bàyyi fii ak ay fan yu fii ak deux jours normalement mhm. war nañ leen bàyyi ñu recouvrer seen liberté mais li may ñaawlu mooy seen place nekkul woon kaso wax dëgg yàlla ak anam bi leen jàppee libéré Pape Alé rek libéré Pape ak libéré daanaka Abdou Karim te ñooñu tamit bi ñu leen di jàpp jaay doole la Macky Sall moo toogoon fi wax ni moom du mës a arrêté un journaliste. waaw mu jàpp Pape tëj ko te koo xamante ni wax dëgg liggéey bu am solo la def man su Macky Sall crédit bi loon sax ba ay nit di ko votel yaakaar naa Pape Alé na si rôle bu rëy Sidi Lamine tamit wax dëgg taxawal ko taxaw bu am solo si Walfadjri loolooy wane ni faj Walfadjri moom si mission la nekk parce que képp ku ñëw. di nga toog di ngàññi wal soo jëlee soo soo nekkee opposant di nga ñëw di nga ne wal fajri moo fi gën soo jëlee nguur gi commencé di ko ngàññi kon de ñu ngi jaajëfal wal fajri si li mu taxaw au côté du peuple parce que peuple bi rek moo jara taxaw parce que képp ku fi doon dara peuple baa tax nga doon dara mhm. ne may ñaan ñi ñi ñu bañ a fàtte loolu léegi ça nous permet un peu aussi ñi masawu Pape Ndiaye mhm. euh, parce que tamit kenn yéenewu ko di ñaan suñu borom teggi ko ko rek mu gaaw a gaaw nag mu ñibbisi parce que soxla nañ ko ci kër gi mais arrestation yu bari yi bu duñu yem rek ci bu Pape Ndiaye bu nee plus de cent jeunes ñu ngi ci kaso bi actuellement ban jàngat ngay def ci loolu au delà de nitu dëgg. waaw ñun lu ñu jaaxal mooy ñun xam nga ñun moom yàgg ñun moom miin nañ kaso parce que saa ñu génnee ñu jàpp ñu tëj ñu donc dérive yooyu ñun yooyu lañ doon dénoncé parce gis nga un état boo xamante ne dafa bëgg a installer dictature chaque fois dafay commencé xam nga ñu ne ful lay jaay Dakar mais soo moytul ma ñam moo koy jeexal. donc ñoom suñu ñamee mu neex dañuy bës xëws léegi suñu ñamee ñun si activistes yi ba ñu paree si activistes yi si journalistes yi lañ jëm kon képp koo xamante ne dafa nekk nit koo xam ne leader d'opinion la koo xamante ne lu muy wax ça dérange le pouvoir alors que ñoom dañ ko waroon jël si ñooñu di si jàngee parce que tey un président de la République mënoo am les bonnes informations partout parce que ñi lay andil information mën nañ ko orienter sax si à ak li mhm. am mission boo xamante ne moo leen tax a jóg te constitution moo leen jox garantie boobu ku mel ni Pape Ndiaye il est libre c'est un journaliste donc nit nan waxee ne jàpp nit di ko laaj ay source su la joxee journaliste su joxee source fu mu jëm kon dootoo amati information donc loolu ay loo xamante ne ñun ñu ngi woo régime Macky Sall mu bàyyi acharnement ak euh, ak dictature bu mu bëgg a installé Sénégal loolu du jàll lu ñu mayul Ablaye Wade duñ ko ko may. te man fin na ma baal sama waay la quoi moom noo def ma dóor ko xel te en 2011 2012 dañoo gis un mouvement Y'en a marre la société civile ñoom Alioune taxaw amoon benn force mhm. koroog dafa mel ne sax Ousmane Sonko maa ngi koy dégg muy junj lu mel maanaam regroupement de forces vives de la nation mhm. mu am une société civile forte boo xam ne day mën a taxaw na nguur gi lii du fi am mhm. mais booba ak tey dañoo gis ne rapport de force nguur gi moom moo koy gagné ndaxte ku mu bëgg a jàpp-jàpp te dara du lii taxawaayu société civile Sénégal nu nga ko gisee yow. non taxawaayu société bu Sénégal ñun moom wax dëgg yàlla ñun moom à un moment donné on on a du mal à comprendre parce que des xaj société civile si boobu sax dafa xaajaloo mooy soo seetloo dafa boo xam ne dafa gaa dafa dafa féetoo si nguur gi am société civile boo xamante ne mu ngi xeex pour àq ak yelleefu sénégalais ñun nag soo ñu nee dañ ne yàq ñeesal ñun ñaata yoon la ñu jàpp te ñun mouvement nitu dëgg la fi ngay wax nii am na deux membres yoo xamante ñu ngi dugg. mais boo leen jébalee seen bopp ñu jàpp suñu bopp yoon de yoon fu waaye yoon fu mu amul wax dëgg yàlla mooy da ngay seetlu gor yi ñoom la ñuy jàpp di tëj ñi nga xamante ne ñoom nit yoo xamante ne wax dëggal dañuy def lu ne gàñ ñu ngeen di bàyyi léegi revenons à la société civile parce que ñun lu ñu mën mooy organiser ay marche jóg dénoncer léegi li si de c'est le peuple sénégalais léegi nag su nekkee nit ñi dañu yokk ceeb ñu ne leen kaay leen ñu marche ñoo ku nekk toog sa kër yaakaar ne soo toogee sa salon man miy jóg ñu may nekk société civile di xeex ñu may xeex loolu ça devient un problème donc dafa nekk loo xamante ne mission publique la bukk ne suñu jógee ne dañu yokk ceeb bi yokkaluñ ma ko yokkaluñ ko Abdou Karim Abdou Karim mii di jóg dafa am njaboot mënoon naa toog këram toog naan ataayam toog xam ne ceeb bi si yokkee ñun ñëpp la yokkal donc les droits fondamentaux dafa nekk loo xam ne ñun sénégalais bu nekk da say war a jóg di ko xeex parce que gis nga jour boo ñàkkee sa liberté ñàkk nga lépp teg fii kenn juddoo fi pour nekk jaam on est né libre et on doit être égaux devant la loi tout le monde doit être égal devant la loi ñun nag loolu la ñuy prôné mais nag société civile bi soo seetloo dafay am ñoo xamante ne muy presse bi xoolee seen biir presse da ngeen xaajaloo mais benn pëne lañ doon taal mais gis ñu def ko édition spéciale mais léegi yow da ngay xool presse bi dafa am presse boo xam dañ koy affilier ñu ne dafa far si nguur gi te loolu sax man du lu may tere parce que soo demee dans les pays comme aux États-Unis am nay médias yoo xam ne dañuy revendiquer ñoom ay ay ay démocrates lañ ñi ne man ay républicain lañ mhm. mais affaire yi dafa nekk loo xamante ne suñu weesoo parparloo dañu war a nekk sur les fondamentaux mooy la liberté Amérique foofu soo laalee liberté ñëpp jóg mais Sénégal ngay gis nit ku ñu toroxal nit ku ñu rey biir kaso te ça ne personne da gis nit spéciale man je pense que à un moment donné dafa mel ni population bi xaw ñu les vrais enjeux yi nga xamante ne moom lañ toll néew di doole Sénégal yi wax dëgg yàlla dañuy jàpp di tëj nit si loo xamante du dëgg du yoon te loolu ñun population bi yëpp si war a jóg soo xoolee événement mars yi mais le rapport de force a beaucoup changé mais ñun dañu déglu kilifa diine man bokk naa ak Karim ñu doon ne ñun d'accorduñu mais kilifa diine su waxee amuñu luñ ci teg mais xoola tey lii di xew dañu yaakaaroon Macky Sall nit la koo xamante ne il est conscient suñ jógee ci événement yooyu dina changer approche jàngee ci un message mais lu ñu xool mooy ndekete nit ki daa arrière pour mieux sauter mooy jëg dem jënd ay armes dem dem dem préparer waat ay force am yokk effectif pour ñëw dal suñu kaw alors que un peuple kenn mënu ko résister gis nga soo demoon benn Ali foofu demoon na un policier pour dix habitants xoolal Sénégal par rapport mais bu population bi jógee dañ ko dégager. c'est bien moo jox ça. voilà macha allah d'abord euh, man moom damay njëkk a wax ne euh, dama leen di euh, parce que félicité ci taxawaay bi nga xamante ni bi am ngeen ko d'abord ngir réew mi parce que loolu nekk na loo xamante ni lu am solo la parce que li ngeen di daj lépp dara taxut ngeen koy daj lu dul réew mi <coughs> mais façon bi ngeen di xeexee est-ce que par exemple saa yi du ngeen war a xoolaat. Euh, ni ngeen di xeexee parce que man euh, ñoom bay laa ak kii bi ñu leen jàppee Karim génn ñu jàpp leen dafa mel ni essence rek boo xamante ni bii moom la nguur gi di def génne na kii libéré na ñi maanaam à chaque fois pour ngeen dajale seen force yëpp pour mën a génn ci biti liggéey li nga xam ni moom ngeen war a liggéey dafa mel ni euh, dañ leen koy empêché te yéen it dangeen di topp benn logique boo xamante ni bii benn ñaar fi mu toll nii maar day taali léegi ñu ne bay laa génn na. defaat nañ la ñooy teewaat nañ ñeneen est-ce que tamit du ngeen réfléchir ci côté boobu parce que tamit seen nekk ci biti moo gën ci biir bu ngeen nekkee ci biir euh, am na lu bari loo xam ne mënoon ngeen ko def ci bitti te dootu leen ko man est-ce que tamit du ngeen xoolaat ci angle yooyu. waaw ça li nga wax noonu am na solo ñu ngi def benn réflexion la dernière fois ne parce que ku mel ni Karim tey mu nekk si biti mu ëpp njëriñ. moo mu nekk si biir. Mm-hmm. mais dëkk boo xamante da toog plateau wax dara sa jàpp tëj yow tu te bien la dernière fois Karim li ñu ko jàppee mooy li nga xamante Imam Ndaw Alioune Badara Ndaw loolu la wax seen émission. Mm-hmm. mu répété ko ñu jàpp ko tëj ko. donc ñun dafa dangeen ngeen foog ngeen xam ne ñun ay activistes lañ même su nekkee ñaari nit. ñun c'est pour lan mooy capter l'actualité ba nit ñi mën a am conscience éveil de conscience c'est la gravité des choses comme tey bu ñu yokkee courant. xam nga sénégalais dañuy woote manifestation ñii di ñëw duñ bëri mais l' activiste mooy day ñëw des fois day doon ret solitaire benn nit kese mu jóg kaas actualité bi wax si pour sensibiliser les gens sur le mooy problème bi nga xamante ne moo fi ne parce que des fois pour nga mobiliser nit ñi da ngay dem déposer ay ay ay manifestation mën nañ la ko tere que mën nañ la ko bañ a tere te soo seetloo Sénégal bëri na ay manifestation ko tere donc ñun des fois ku mel ni Karim man moom des fois dañuy jote du mu wax ma ne ko carrément sa waay sa njëriñ que tey jóg manifester est-ce que c'est un droit nga jàpp ko tëj ko. parce que manifestation waruñu si rey nit il faut ñu xam loolu tamit. manifestation normalement waruñu si rey nit manifestation tamit waruñu si jàpp si nit. donc suñu demee ba ñun sax ñu nangul ko nguur gi kon ñun sénégalais ñu ngi privé seen bopp suñu bopp un droit boo xam ne c'est mais dans la constitution te Macky Sall constitution bi moo ko may droit yi mu am ko suy romb si mbedd bi ñu bàyyi ko mu jàll que moom lépp mu ay décret mu mën a fal. waaw léegi yow lu tax constitution boobu doo ko respecter les citoyens nga xam ne ñoo la ko jox parce que ñun dañ ko dénk donc il faut mu respecter ñun activistes yi du ñu ay noonam ñun tey mënoon nañ jël euh, mënoon na jël tempérament réew mi par rapport ak ñun parce que ñun dañuy xool di dénoncer li nga xamante ne l'inacceptable ñun loolu la ñuy dénoncer. léegi li Omar waxaat encore ci côté dajaloo bi pour booloo parce que man defe naa ni euh, ni nga wax sànq wane ni presse bi aussi tamit ni ñu xaajaloo euh, loolu moom nguur gi la gën a arrangé. que yi nga xamante ni bii ñoom ñooy presse bi ñoom ci seen jëmmi bopp parce que xaajaloo bi baaxul est-ce que yéen tamit société civile yi est-ce que du ngeen toog waxtaan. parce que dafa am fu ñu jëm. foo xamante ni fii dañ leen soxla ci dajaloo réew mi dafa la soxla pour force yooyu yëpp daa dajaloo am benn kàddu ak benn gis-gis boo xamante ni bii mooy peut-être li nga xamante ni bii war na mën a indi dal ci réew mi loolu fan ngeen ci toll ak tamit est-ce que yéen a ngi liggéey jëm ci sens boobu. waaw ñu ngi liggéey lu jëm si loolu parce que keroog ñu ngi doon waxtaan ak quelques muy man Karim ak quelques mouvements yoo xamante ne bëri na nag ay mouvement yoo xam ne à l'étranger lañ na. Hmm. keroog tamit bu ñu seetee Ousmane tamit euh, bu ñu ko seetee këram di ko masaw ak li ko xew jéem nañ si waxtaan parce que le problème mooy dañu jéem a fexe ba société civile bi soo jógee rek ñu ne la non ay politiciens encagoulés la. waaw léegi xam nga le fait que ngeen dem seeti Ousmane Sonko mën nañ leen a est-ce que loolu tamit baax na. non parce que duñ leen wax ne yéen ñi parce que mi ngeen demee seeti kii waroon ngeen dem tamit seeti waa APR. ñun bañuñu loolu. parce que ñun suñu mais def ngeen ko tamit. waaw ñu koy jéem parce que problème bi mooy ñun suñu nekkee société civile. Mm. pour fexe tension bi nekk si réew mi. ñu jéem ko apaiser. Mm. parce que Sénégal su amee problème ñun ñëpp koy yëg man événement marché bu mu amee man daanaka perte naa plus de dix millions pour te le dire parce que ay conteneurs ñoo ñëwoon waroon a léegi nag ñun lu ñuy ñaan mooy waa société civile bi ñu ngi koy dox pour xool les forces vives de la nation def comme un mouvement M5 bu Mali ak yeneen dëkk yi pour au moins ñu jéem a la situation jéem a combattre li nga wax ni mooy dellu ginnaaw bi en 2012 Y'en a marre mu inspiré woon ñëpp ay film bi ña nekk waa Congo comme li ngay wax mouvement bi nekk Mali. Mhm. ñooñu ñëpp presque Yann maanaam mooy Y'en a marre moo leen inspiré tey jii yow nga ni dañuy inspiré wu ci ñooñu. mais recul démocratique bi fi am moo fi andi. recul bi parce que tey le problème mu ngi nii. Mhm. mooy ñun. dañaa jóg doon waa Fatick dañ doon invité mhm. ay ñoom ne Y'en a marre ñuy dem seen dëkk le ballet citoyen de Burkina de Burkina waa léegi yow Burkina nu mu tudd sax mooy nan lañ koy wax nga dem tey Nigéria def nañ transition boo xamante ni kenn dégg ko waaw nga dem euh, suñu mbokk yi nekk fi euh, Cap Vert mm-hmm. ñaata ñaata ñaata élection ñoo si am si diggante bi <laughs> Sénégal jiitu woon mais dafa mel ni ñun dañuy def benn pas en avant reculer dix fois donc man je pense que loolu dafa war a interpeller muy classe politique bi mm-hmm. muy société civile parce soo seetlee si nguur bi ñaata nit yu nekkoon société civile ñoo dem fekk si nguur gi dafa mel ni société civile dafa mel ni promotion ngay ut saa yi demee boo am benn aura nguur a wax ah parce que ñun dañ fi a nekkal askan bi askan bi la voix des sans voix comme li ngeen am na ñoo xamante ne ndeysaan mm-hmm. ñu ngi toog fii Sénégal yaa ngi rappelé la fois dernière am na xale boo am ne si manifestation lañ ko tiré mm-hmm. mais dafa wër wër hôpital yi ba mujjee dee mais loolu du yoon te Dakar waaye léegi imagine ñi nga xamante ñu ngi à cent kilomètres wala deux cent hmm. ku mel ni Karim ñëpp xam nañ ne moom dafa bàyyi léppam pour Sénégal mais pourtant lu ne lay daj man des fois mooy sa problème est parce que Sénégal tamit nit ki parce que tey dafa fàtte boppam hmm. tey même fu muy liggéeyee des fois dañ ko xam nañu xeex a nguur yombul hmm. xeex a nguur yombul mais ñun jaral nañu ko jaral nañu joxe suñu bakkan pour le Sénégal la pour suñuy doom parce que man du ma nangu may dem Europe je voyage xaj feebar ambulance jël si ko dem faji ko man sama nit feebar kër ga awma benn ambulance bu koy jël man maay rug-rugi jël taxi wala kalandoo di ko yóbbu Sénégal mérité na mieux parce que suñu population bi wax dëgg la ay jàmbaar lañ te ñu bëgg seen askan lañ ñu bëgg seen bopp lañ soo demee à l'étranger da nga gis sénégalais fu ñu daje di gis mooy des fois corps yi ñi nga xam ne ñooy gaañu sax ay nit ñuy cotiser lu mel ni daara yi si murit si murit yi suñu mbokk murit yi mhm. mais loolu c'est quelque chose de de fondamental Sénégal naqariwul defar am ko jub ku bëgg réew mi rek lañ soxla su boobaa ko réew mi day dox ma wax dëgg yàlla sànq ma euh, saa mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy cof di ko wax ma bëggoon ko ko euh, laaj muy que ni euh, jàpp yi nee jàpp ak génn yi ñuy génn di def loo xamante ne nii dañ leen si jàpp man gis naa ne à chaque fois suñ ko defee rek dootuñu talati sax lu bëri comme ni ñu doon joxe gëddaa bu problème amee ñuy génn di mën a wax parce que bu ñu jàppee seen nit rek. dañuy daal seen combat mooy nekk nu ñuy fexee ba nit kooku génn est ce que ñoom tamit du ñu jéem a organiser wu waat de telle sorte que bu ñuy génn te di wax dinañ defar seen wax ba kenn du leen fekk fi ñu nekk dem di leen jëli su ko defee seen xeex ak euh, nguur gi wala yi ñu bëgg euh, Sénégal yi jaarale ko yoon muy gouvernement bi ñoom itam ñu ñu ñu bàyyi ci xel parce que buñ la jàppee moom nga topp ci kooku noonu ñu jàpp ko dootoo talati xeex bi nga doon xeex xam tamit loolu problème lay lay lay lay doon. ba jàpp ni sax let état daf ñuy divertir parce que suñu jógee tey combat ñu ne pétrole bi la ñuy xeex ba combat bi am ampleur ñu xëy jàpp Karim ñu bàyyiwaat loolu nekk libéré Karim libéré Karim te ñun dañu jóg bi yoon ba nga xamante ne libéré yooyu la ñuy teg nee parce que le seul problème qui est devant nous c'est le président Macky Sall donc tant que lijjantewuñu problème boobu ba nga xamante dañ koy ramener à la raison ñu forcer ko mu respecter constitution boobaa jàmm dina am mais jàmm moom il faut mu dalu si lan nga tuddee respecté constitution bi troisième mandat. non troisième mandat parce que en 2012 gars yi li leen dajale woon mooy xeex contre troisième mandat mais bii danoo gisagul benn initiative boo xam ne jugee na ci les parti politique et la société civile. ku ne boppam la tal est-ce que nekkul ni loolu nag ñu ngi xam nga fu mu toll nii Macky Sall moom si boppam waxagul mais mu ngi yónni ay nitam ñu mhm. dem si plateau yi dem di daje minute ah, di làmbatu mais ñun xam nañ lu ñu mayul Ablaye Wade duñ ko may Macky Sall mhm. te la constitution mooy dañ koy imposer mu respecté ko la constitution a dit que bi nul ne peut faire plus de deux mandats soo jógee ñeneen di la wax ay waxu tappale ñoom nee na na léegi deuxième quinquennat la benn yoon ñu ne la constitution ñoom ñu ne le mandat mais nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs waxuñu deux mandats de cinq ans wala de sept ans donc xam nga am na loo xamante ne dañuy respecter sénégalais yi gis nga sénégalais ay borom xel lañ bu ñu yaakaar ni nit ñi dañ nekkoon ay 1960 1980 gis nga léegi même ku jàngul hmm. ku mel ni ay saa wala ñeneen ay sëñ baara hmm. Hmm. dañuy toog farax fara fàcceel nit ñi ba mu leer seen bopp moo tax cette masse critique là dañuy dépasser politiciens alors que Abdoulaye da ko réglé da ko en 2000. waaw mooy le problème des deux mandats. Mhm. yow nga ne da ngay def révision constitutionnelle. Mhm. nga ñëw nga wax ñëpp dem ba si sëñ maa ngi gis tey ñu koy. baar si sëñ Sidi. sëñ Sidi Mokhtar waaw mu ne woon moom da koy respecté. nit ñi bëgg a yabaat sénégalais ñëw di leen ne non non deuxième quinquennat. loolu waxu caaxaan la loolu pour man. commencé léegi parce que nii ñuy bay bayalee di wax ne moom mën na dem mën na dem yéen ngeen di toog di seetaan rek ba ba ba mu xëy na këtt na jona ne day présenté. non du bay bayal xam nga tey. Mm-hmm. Eh, il faut taper le fer quand il est chaud. xam nga tey moom mën na comme waxagul tey soo jógee di xeex dañ leen ne mais pourtant moom waxagul de moom waxagul ndax day def troisième mandat donc ñun lu ñu mën a wax mooy nekk en nalerte mooy nekk en alerte di ko xaar parce que mooy troisième mandat moom ñun du ko amul sax xalaat. Mm-hmm. duñ ko nangu soo ñëwee ñu lay nee non constitution man nag am na li ma ragal mooy Macky Sall mën ngaa xëy un nga gis conseil constitutionnel affiché turam mën na ne ah. nit koo xamante ne moom wax dëgg jombul dara te doomu aadama soo Macky Sall Sénégal da kaa teral te doomu aadama suñ la teralee mm-hmm. da war a xam ne yow dañ laa teral parce que gënoo fi nit ñi ndey wala mm-hmm. bàyyi wala leneen sénégalais ñoo xool wóolu la la ah bàyyi ñu jox la nga jiite réew su nekkoon si diine lañuy ñuy xool xalif généraux yaa ngi fi ak ñeneen ñoo mm. jàng ñu ko dàq jàng fi ne Cheikh Anta Diop jaar na fi te wax dëggal jiitew réew mi te moo ko dàqoon jàng foofu. Mhm. donc moom moo war a respecter constitution même s'il était le meilleur président du monde. na def deux mandats dem nga xamante ne ñun Sénégal dañuy régler le problème te deux mandats une bonne fois pour parce que lii su jàllee keneen su ñëwaatee il va faire la même chose. Mhm. te ñun loolu lañ bëgg a bi yoon mu dagg léegi nag moom su nekkee moom wax dëgg yàlla ay Farba Ngom lay déglu wala ay nitam bàyyi sénégal yi nga xam ne ñoo ko wóolu jox ko réewam déglu Farba moom nga bëgg dara te ko wax mm-hmm. mais loolu ça pose problème si c'était légal kay looy ragal pour wax léegi ñu bàyyi la nga maa leen di gërëm di leen <laughs> sant di di di nuyu Karim wax dëgg yàlla ñaan sénégalais yi nañ ko ñaanal parce que nit la koo xamante ne ku bëgg Sénégal di ñaan kilifa diine wax dëgg yàlla gis nga réew su fa tollee bu ñu nangu nit di leen ne yéen doo leen politique gis nga politique bi ñoom li ñu am cër bu ñu am si réew mi présidence amu ko donc dama leen di ñaan ñu jóg wax si lii jëm parce que magum xamoon naa ko magum waxoon naa ko moo gën te ñun dëgg la amuñu leçon bu ñu leen di jox xam nañu il sont très informés mais dafa toll foo xamante ne ay li xew comme xëy bind not ne diw bul ñëw julli si nañu éviter yooyu parce que seen entourage dañu gis ni des fois wax dëgg yàlla war nañ ko xoolaat parce que kilifa diine am nañ loo xamante ne du deñ ñoom amuñu mandat ñoom seen mandat si éternel donc du ay jëfu àdduna wala yenn moo war a mën a tax ñuy jaay yenn yi daal di leen ñaan ñu wax ci affaire yi pour tension bi wàcc